ah moom daal fi nekk ah. mooy fatu quoi. waaw la dëgër. waaw foofu fa laa doon waaw fa laa jëm si woon sax waaw ñu yàlla fi mu nekk mhm. xam nga. Mhm. Mhm. génnee ko fa jàmm quoi. parce que natt moom du wees ko dëgg parce que xam nga la dëgër moom koo xam xam ko ci yar ak teggin ak discipline. mais adduna moom nattu mooy mooy mooy loolu quoi. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla génne fi mu nekk. amiin delloo si njabootam quoi. amiin la ko gën a soxla mm-hmm. la gën a soxla ko ko taxaw. Mm-hmm. waaw di wax ak lu làmb yëpp muy mbër yeeg. amateur yeeg reporter rek nañ ci jàpp. waaw suñu borom mu delluwaat ci njabootam quoi. am na solo en tout cas Aline mi ku bëriwul ak moom actuellement nii dama yaakaar da bëggul bëri ak moom rek. da nga bëggul a bëri ak moom. waaw combat yi mu war a bëri bari na sax. Uh-huh. comme nga ko léegi bu ëmb nanguwul tamit Franc ngi fi a ngi fi nga dem bëri ji am déet. neex na bay bëgg. Franc neex la combat la. waaw tout est possible lépp a mën a nekk lépp mën naa ne lépp a mën a nekk mais ci foofu la ñuy profité rek comme Mbacke fay tudd na ko léegi falaa bëggoon ñëw sànq Mbacke far na ko tudd muy le cas de Lac mm. ku ne xam na ne yéen a jàngandoo bëre mën naa ne day fa day faral di wax sax naan mm-hmm. yow yaa ko jàngal bëri mm-hmm. da koy faral di wax lu bëree bare bari bëri ndog mi ñëw dal ci kawam ah, caabi féete ko ginnaaw ñu koy ñaanal yàlla foofu yàlla na fa génn ak jàmm yéen a bokk géejawaay bokk écrit bi bokk lépp ñaa ngi dégg euh, bi ko lii dalee alin noo ko yëgee ak itam nu ngeen koy dunde yéen ñi nga xam ne yéen a partagé ak moom lépp ci wàllum làmb ak dëkkandoo waaw Babacar duñ def lu sant yàlla rek waaw di bëgg waat Mbacké Faye rek ndax comme ni ko waxee rek xel xel day fàtt mm-hmm. di ko di ko ñaanal moom tamit waaw boobu xel ni ñu koy wax nii yàlla macha allah mm-hmm. ndax li mu wax noonu man moom laa waroon ubbee mais xamal waaw ak tardement beeg mm-hmm. xel day fàttu mais ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi nga xamante ni moom mooy tege nat te comme ko teggi nga tegee ko bu gaaw yàlla na ko yàlla tegee bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ndax moom comme ni ñu wax rek suma cheikh la suma lépp la. Mhm. waaw moom moom fu mu pikiroo ma naan fay doom. Mhm. mais dafa di nattu ak dogal pour doomu mhm. aadama la. du pour mala du pour lenn. dëgg la waaw bu ko suñu tegee sa kaw nag da nga koy mun gérer ko. moom mi la ko teg moo la ko teg amul keneen ku la ko mun a teggi. nit ñi rek dinañ def ay pexe ak dugg ak génn yooyu mais su fekkee suñu borom waru koo jeexal. bu ci ñëpp àdduna yëpp jàppoon du jeex. mais ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy teggi natt. yàlla na ko teggi bu gaaw a gaaw a gaaw ci barke Seydina am na si waaw gisante nañ fi. Mhm. mercredi passé rek. mercredi passé seeti nga ko incha allah waaw demoon naa fa waaw. ci mhm. ban kii nga ko fekk ban. non moom moom nangu na nangu na dogal li xam na ne waaw foofu ay mala newuñu fa ay nit la fay nekk. la fa fekk. Mhm. te buy génn tamit dafay bàyyi ay nit. Mm. te xam it nattu la rek boo xamante ni mu war a jaar si doomu aadama la ndax dee moo gën a metti foofu te nit ñee koy def te ñi ngay dañuy bàyyi ay dañuy bàyyi ay njaboot te njaboot bi dañ koy muñ waxatuma laa koo xam ne day dugg kaso mm-hmm. boo fa defoon cinquante ans sax fekk xam ne yàgg yàgg di nga génn mm-hmm. kon nag suñu borom mi nga xamante ni moo mën a teggi natt di koy tegg mm-hmm. yàlla na ko teggi bu gaaw a gaaw mi ngi baax daal instant bi mi ngi baax mi ngi koy gérer waaw di ko ñaanal ak lu làmb ñu taxaw ko jàppale ko comme ñoo bokk loo xam ne mun ñu ko séddoo comme ni ko gaa yi di waxee ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey warul yem ci làmmiñ kese mm-hmm. wax dëgg suñu la bokk tey wax dëgg yàlla lu wokk kenn war naa wokk ñëpp mm-hmm. te ni loolu soxla na ko mm-hmm. te yaakaaru ci kenn ku ak lu làmb ndax ñun moom man mbokk sama sama sama gis-gis mooy taxaw bi dafa des taxaw waa làmb taxaw taxaw ci moom taxaw ci yenn saay ci ci ci ñenn ci ci kii te am na yoo xam ne bu leen daloon nii mhm. bu yennoo dafa naan hmm? maanaam dafa am ay dafa am ay kii mais nag loolu yëpp sant yàlla rek hmm. yow da ngaa gis ne waa làmb ñoo ci taxaw diñ ci war a taxaw wala taxaw taxaw am ñoo gis am na ñoo xam ne gisoo leen te ñëpp ci ñëpp ci waroon taxaw ndax hmm. moo comme dañ koy wax ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon loolu nekk warul yem ci làmb làmmiñ kese dañ ko war di jëfee képp koo xamante ni nit dara wokk na ko dal na ci kawam muy bànneex muy naqar war nañ ko ànd ak moom. Mhm. loolu laa gis quoi. dëgg la mais ñu ngi ci woowaat ñu ngi ci woowaat yëpp képp koo mhm. xam ne am na ci taxaw wala jàppale. Mhm. ñu ngi la ciy woo rek pour nga taxaw ñu ci jàppale ñu ndax foofu la foofu affaire mbir mi foofu la toll daal. dëgg la na ko yàlla yombal ba mu jóge ci loolu grand salle. waaw xam nga Babacar wax nañ ci keroog fii man ak yow. la dëgër kenn déggu ku tul ñàkk fayda kenn mësu koo dégg lu ñàkk fayda Lac de mm-hmm. Mm-hmm. kon damay wax ne lii ndog la mm-hmm. te nit nag kenn du ko jàppe benn yoon Babacar déedéet booy bi wax na ko xam nga tey waa ahlu làmb war nañ ci taxaw waaye ak luñ ci taxaw taxaw tamit si si yor dossier bi nañu bàyyi xel ne kii nit la koo xam ne ci société bi amal na njëriñ société bi en plus nekkul koo xam ne da nga koy dégg ci yenn yu garaaw yi. nit nag Babacar. Mm-hmm. da ngay juum. waaw lat dafa juum. Mm-hmm. te tey bu toogee dina xam ne dafa juum waru kon dugg ci lii. askanu mm-hmm. tey yërëmul ay doomu aadama moo ko dugal ci lii. mu métti ci ñoom mu xalaat ne war na leen mën a génne dëkk bi. mu bëgg ci jàpp. ba lii fekk ko ci mm-hmm. dañu ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla teggin mm-hmm. te képp koo xalaat ne yaakaar nga ne mun nga ci dara mm-hmm. nga jóg ci taxaw ji parce que doomu aadama waxuma sax ay affaire u làmb yooyu mais doomu aadama nekk ci xat-xat boo ko mënee dimbali Babacar nga dimbali ko te yàlla tax te yàlla tax te nag dañ ko war a dimbali quoi dëgg dañ ko war a dimbali quoi parce que bari nañu ko bëgg te te te te dégguñu Lac boo xam ne da koy dégg def na la lee wala def na lee wala def na lee boo xam ne la ci làmba ji la nekk di bëree bu bëree ba pare dem jàpp njaamuram mhm. ndogal nag dafay am daam Babacar mhm. Babacar doomu adama da ngay yor sa oto léegi di ko dawal mhm. di daw ba mbëkk fenn nga dee fa ndogal lu ne la lay digee doomu aadama dëgg la li ndogalu yàlla lu wàcc ci moom la ku ci xalaat ne mën nga ci dara nga jàppale ko te yàlla rek tax ko am na solo Bakary waaw Babacar comme ni nga ko waxee ah la de guerre moom franchement man ba may ba may ba may doog a dégg information bi sax mënu ko mënu mm-hmm. fekk na mu ngi France je pense. Mm-hmm. mais nee carrément lii peut-être intox la wala fake news laa doon wax sax quoi. Mm-hmm. mais bu ñëwee mu gis nu mu demee nii. ba léegi maa ngi <laughs> maa ngi gasaat bu baax di xool nan loolu nan la mën quoi. est-ce que du ci ñi mu ko wala mu am ñoo xam ne dañ ko dañ ko. mu nekk mu mu àgg foo xam ne peut-être waru fa woon àgg. Mhm. ak ay nit. Mhm. ba ñu bàyyi ko ci ci ci ci mbir yi quoi. Mhm. mais comme niñ ko waxee aussi euh, ndogal la. Euh, sunu borom mooy tege natu aussi te ni ko am Aliou Seye noonu la noonu la demee du ko teg mala du ko teg kenn nit rek la koy teg. donc euh, kaso bi aussi ay nit rek a fa nekk. ku fay dem ay nit nga fay nga fay fekk boo fay jóge aussi ay nit nga fay bàyyi. donc ñu koy ñaanal yàlla génnee ko fa. donc may insisté waat bu baax ci li mu wax askanu làmb euh, day am nit nekk ci dara ñu naan nit ñi taxaw ñu ci mënul ñaar ci askanu làmb parce que làmb làmb ba làmb jouru làmb ba jouru làmb la askanu làmb di gaaw a dañ te buñ dajee ku nekk ku nekk ak sa mbër waaw yaa ngi ànd ak sa mbër di xool nu muy def ba am ndam mm-hmm. Babacar ngi yor micro am beeg mm-hmm. bi di xool nu muy def mais mm-hmm. askanu làmb lii ba mu amee xëy na mënoon am ay pionnière ay kilifa yi nekk ci làmb ji ñi nga xam ne dinañu mën a waxtaan seen biir bañ ne carrément lii mooy problème mu làmb lii mooy problème bi nañ ci waxtaan ak ñu ñun ci war a waxtaan ñëpp mën koo partager mais am na ñoo xam ne jusqu'à présent lii nii ci presse lañ koy yégee ci presque rek koy yëgee donc lii ba mu amee peut-être xaw ma ndax am na ou amul aussi mais mbër yi ñoom seen association bi peut-être waroon nañu rassembler wu xëy ñu xool nu mu nu mu nu mu demee. bu ñu mënee interpeller le CNG aussi ñu interpeller leen promoteurs yi bu leen ci mënee dugal aussi ñu dugal leen ci. Mm-hmm. mais juste presse bi rek ngay dégg ñuy wax kii bu génnee ne non promoteurs yi jàpp ñu si diw jàpp na si diw jàpp ñu si. Mm-hmm. donc loolu day andi benn benn benn confusion lay andi ku nekk doo xam fooy taxaw quoi. ma sañoon daal ñuy dajaloo. Mm-hmm. ñi ñuy xam problème bi nu mu tëddee. ak lu mu laaj. ñu xool ndax mën nañ ko lijjanti wala mënuñu ko lijjanti mm-hmm. mais là on est y a pas mal de gens yi nga xam ne dañ nekk ci flou mm-hmm. waaye li ci mën li ci ëpp solo daal mm-hmm. mooy nañ ko ñaanal yàlla mu jugee fa ñëw fekk si waat njaboot gi te incha allah lii bañ koo dalati yàlla baax na yàlla na ko yàlla def yaakaar naa message bi ñu waa làmb dégg nañu ko euh, mu mel ni ki euh, Mbacke yow damay ñëw si yow par euh, balaa ñuy defaat autour du table pour jeexal mm, bi nga daanee rëm ba pare léegi nag gaa yaa gis naa fii ñuy bind naan yaag Diop 2 am na ñenn ñuy wax leen yow loo wax yow en tant que. waaw man damay nuyu tamit xam suñu. grand Bakary waaw. waaye yaram aar leen ñaanal suñu seen journée bi ñu jëm xam nga yàlla ñu def ñu réussite am ci réussite totale quoi. Mm-hmm. parce que xam nga ñoom bu ñu yokkul la ñoo wàññi quoi. Mm-hmm. waaw affaire yi moom xam nga. Mm-hmm. noonu la quoi ñu ñëw jàpp si rek parce que mbër yi bëri nañ bu